nee na nay dolliku di wéy rek di gën a jëm ca kaw rek nee na nii rek la mbokk jullit yi mbokk talibe wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal ak kilifteefu sëriñ Abdou Latif xalifa Ndiène sëriñ Ibra Xuja Mbàkke xalifa Cheikh Ahmadou Ndoumbe sëriñ Sohaibou Diène xalifa sëriñ Bara Diène sëriñ Cheikh Diène coordonnateur journée culturelle maam Cheikh Issa Diène ak mboolem jamiyatu tawdig wa nasru injazati Cheikh Issa Diène ñoo am mbégte di leen yëgal ñeenteelu édition journée bi muy quatrième édition bi marraine bi Cheikh Issa Diène ak liggéey parrain bi Cheikh Ahmadou Ndoumbe Mbacké Xaban ñu di ci rendre hommage Serigne Sidi Mbacké Alioune ak Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman di ko yëgal mboolem jabootuk Serigne Touba gi Mbacké Mbousobé mboolem ñi ñu bokkal maam mboolem këru diine yi mboolem jullit rawatina nag mbokku taalibé yi di ci woo mboolem njabootuk Serigne Ahmadou Ndoumbe mboolem njabootuk Cheikh Issa Diène taalibé yi ak mboolem daayira yi di ko yëgal son excellence Ndiaye Arona Coumba Ndoffène Diouf ministre conseiller di ko yëgal mbooleem opposition bi société civile bi ak mbooleem wëllëri yi di ci woo Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Ahad Serigne Cheikh Bintou Mbacke Sam Serigne Saliou Abdourahmane Khaban Serigne Khadim Mbacke Fass Serigne Cheikh Astou Mbaye Diène Serigne Makhtar Diène conseil président Serigne Sidi Diène Soyibou Serigne Sidi Nar Diène Serigne Soyibou Diène Diara Soxna Mimi Touré présidente CSE Damba port autonome bu Ndakaaru Mor Aaj Sénat assurance Serigne Dieng Birane opérateur économique Alesec commerçant El Touré, commerçant ci Touba El Hadj Mbaye Gueye EMG El Hadj Modou Mboup transporteur El Hadj Dame Ndiaye commerçant Abdou Diagne Transvi Soxna Mbenn Diène Daara bés bangoog ñeenteelu édition journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène dimanche fukki fan ak juróom ci weeru mars 2020 ca CICES ñuy ñaan ci barke borom bés bi di Mame Cheikh Issa Diène borom njenne ak lëgën képp ku fa teew dajafaak lëgën asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu